may wax ni nit ku nekk yow yaa war a nekk sa nattukaayu moroom maanaam li nga bëggal sa bopp ci lu baax nga bëggal ko sa li ngay dawal sa bopp ci safaan nga dawal ko sa moroom bañ ko ko yéene su ma nee sa moroom nag ki nga xam la ak ki nga xamul ki nga yilif ak ki la yilif li tax may insister ci nit ku nekk yaa war a nekk sa nattukaayu morom maa ibra li nga xool ba xam ni bëggloo ko sa bopp ndax baaxul bu ko yéene sa morom bu bu ko bu ko bu ko yéene sa morom li nga xool itam ba xam ne lii kat attanuma ko bu ko yan sa morom ci laay waxee ni ñam bi nga denc ba mu yàqu nga xool ñam bi xam ni bëggoo ko lekk ñam boobu itam bëggoo sa njaboot lekk ko bu ko jox njabootu jàmbur ndeem ki nga koy jox dafa ñàkk walla ndeem ki nga koy jox yàlwaankat la xaw ma ndax nit ñaa ngi koy def ba léegi su ñuy fàttaliku ndongo daayira yi suñ daan yalwaan sax seen pot dañ ko daan indi fa ñuy yàkke suñuy yàkk añ bi foofu lañ leen di tibbalaale luñ leen di sarax may insister ni ñam bi nga xool bëggoo ko lekk bëggoo ko jox sa njaboot bu ko jox njabootu jàmbur ndeem kuy yalwaan ndeem ko dëkkandoo la boo xam ne amul lu mu reere beneen bi itam yére boo xam ne xool nga ko bëggoo ko sol bëggoo ko sa bëggoo sa njaboot sol ko bu ko solal njabootu jàmbur nit ki sooy mayee sax war nga maye loo xam ne yow danga ko bëgg war nga maye loo xam ni yéene nga ko sa njaboot may wax itam ni jank bi nga jël ci sa biir kër ngir mu liggéeyal la man dama jàpp ni jank dafa ñëw rek pour jàppale la ci liggéeyu kër gi jank ak loo ko mën a fay lu mu bari bari bari ba mu tax nga defe ne lépp dang ko ko war a yan liggéey boo xam xamoo xam nga ni yow àttanoo ko xam nga ni sa doom yi ko motax nga jël jank bu mu tax nga defe ni comme que dang koy fay lepp ding ko ko yan lima bëgg moy ku dugg ci kër gi rek so xolé jank bi nga fokk ni sax ci kër gi la bok wallahi amna amna kër yo xamni suñ la waxul ni ki jank bi la do ko xam lolu moy jëfi julit ma bam ni nit ki ak loko ko fay bu mu tax tek bu mu tax nga tek lo xamni do tek ko tek sa bop do ko tek sa njabot may wax itam ni la confiance se mérite malheureusement damay wax ni ñenn ñi ñoy yakal ñen ñi am ño xamni suñu démé bay am yenn comportement yi ci seeni jank wala di len moytu daf ci am ño xamni ñoy yakal ñen ñi waaw am na itam da nga len di wolu ubbil len sa kër ñu def fa naka sudul noonu waaye li ëpp solo ci jullit mooy ki nga jur ki nga njaboote ak koo njabootewul yëpp da nga leen di def ni sa njaboot euh, te damay wax ni vous ne savez vraiment pas à quel point le travail de quelqu'un est difficile jusqu'à ce que vous le fassiez vous-même liggéeyu jànq ku defe ne dafa yomb ku defe ne li nga leen teg dafa yomb ndax li nga leen di fay na tabaski jot ñu tabaski ji wala sa jànq xëy bàyyi ci ngay xam ni seen liggéey mbokk mi yombul